salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si si nar a gën a fës. bokk na ci li ci nar a gën a fës jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo gune yi wala boog ñu leen di yelwaan loo loolee tax na rek kiy nekk njiital daaray Sembène mi nga xamante ne samp nañ ko foofee ca Thiès daal di na lu loolee daal di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di fexe doxal la nga xamante ne moom mooy loi bi daal di aar gune yi. dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lay doon coow la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub euh, lu ñuy dugal lépp lu jëm ci wàllub jàngal gune yi ci wàllub sëy wala boog genre coow li wureegul donte ne sax jëwriñ gi ñu denk lépp lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngal bi àdduna ci foofee ca G7 ñoom nag jàpp nañ ne dinañ def benn caravane ba nga xamante ne dañuy wër kilifa diine kilifa aada ak fépp fi kilifa daal di nekk ci réew mi ngir rek daal di ko yeggale ci loraange ya nga xamante ne loolee mun na ko ànd ci réew mi dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono uude yu nekk foofee ca Medina ñoom ñoo ngi ci njàqare ñoom nag bokk na ci ñàkkum financement ak jumtukaay rawatina jamono yi mbas mi la ñëw daal di alawti ko fa ñoom loolee nag gis nañ amut kenn ka nga xamante ne daal dina yëkk ay kàddu rawatina jëwriñ ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub artisanat mi fa daal di ñëw te euh, nemmeeku leen loolee nekk tey ji la ñu janoog ay xibaar yi ngi rek daal di ñaawlu loolee. askan wa nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo ca jogo ndox mu bon bu jaarut yoon la ñuy naan loolee nag moo tax ñu daal di am ab doogaanu ñaxtu ni ki tey ji euh, ñaawlu loolee daal di yëkk ay kàddu yuuxu wala jëmale ko ci njiitu réew mi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci euh, coow loolee daal di tàbbiwaat ci njàng beeg njàngale bi ak lu jëm ci wàllu mbas mi ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 kii di Assane Thioune moo féete ci xarala gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo. Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas yu ñu lëkkaloo tey nekk talaata yemboog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum ñaari junni. ak ñaar fukk xibaar yi ñu doore ko ni leen ko waxee ci lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi rawatina taalibe yi di yelwaan saa su ne ci biir xal yi loolee nag doon na la nga xamante ne moom moo daal di ëlëm directrice daaray Sembène ba tax mu daal di yëkk ci ay kàddu foofee sa Thiès jàpp ne nag taxawaay boobee wala boog melekaan googee ñuy nemmeeku ci gune dewnut la nga xamante ne moom moo gën te méngoowut takk lii lee di diine l'islam tax na rek mu daal di sàkku ci njiitu réew mi mu génne luwaa bi nga xamante ne moom mooy aar gune yooyu ñu daal di ko doxal Xaja May ñang lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro Babacar Ndaw lislaam dafa di diine goo xam ne dafa fonk xale lislaam dafa sargal xale lislaam dafa fonk doomi aadama bi ndax ñu cëral ko lan la ñu gis senegal suba ba ngoon ay xale di taxawaal waa ma ne naka lañoo jàng arxuraan bi nga xam ne dafa am xet gu neex bëgg lu neex bëgg lu rafet ci tilim ci tumuraanke tànku neen yére yu salte loolu naka la mën a nekk xale yu nga xam ne seen wër gi yaram dafa daw yaram nga xam ne dañuy tàllal loxo suba ba ngoon xale yu nga xam ne dañuy nekk ci naaj boo xamante ni mag àttanu ko xale yooyu tànk neen la ñuy def senegal nguur gi di seetaan te yàgg a seetaan ndaxam de xam ngeen li xewoon Medina juróom-ñeent xale seen bakkan rot ci lakk te mujjewut fenn ndaxam de xam ngeen ne daara jooju di nekkoon Medina lakkaat na fi ci ay atam te mujjewut fenn nga xam de bés bu nekk ngeen gis ñu ne ci rajo yi wala télé yi xale bu oto dër ci mbedd mi te nguur gi waxul dara Sénégal yëpp di seetaan te assemblée nationale dafa voté ab loi teg ko ci yoon ci fukki fan ci mois de mai ci 2005 mu ne képp ku jàpp nit di ko forcer ne ko demal yalwaan am na ay daan état mi ngi seetaan moo tax ñuy oo président Macky sàll ngir xale yi tumuranke bi daq Sénégal boo gisee nataal yi yi am ci carte postale yi ci documentaire yi ci reportage yi ci photo yi ci nataal boo ko gisee muy taxawaale si àdduna bi yëpp ñu ne lii mooy senegaal sa xol dafa jeex da ngay am gàcce ndax dañu naan kon Sénégal fonk ñu xale moo tax ñu ne président de la république Macky Sall daara moderne yooyu ngay wax nu doon loo xamante ni du doon rek ay wax wax wax nañ ko gis te mu bëri lool nag ñi ngi lay ñaan nga taxaw ci temm te ñu lay ñaan bu mu am l'internat bu mu am benn l'internat ndaxte waajur yi dañoo war a taxaw yor seeni doom dundal leen leen leen ay yére yiir leen dañu màgg ndax yooni yokkute boobu ngay wax ñu mën ko gëm président Macky Sall. Xaja euh, May ñaa ngi nekk directrice daara yi Sembène ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci njàng bi ba nëgë ni lu jëm ci wàllu njàngum tubaab bi nag fi mu ne nii coow daldi di fa tàbbiwaat bokk na ci lu ñu fas yéene dugal njàngaleem euh, sëy diggante góor ak jigéen ci gune yi loolee nag tax na syndicat si ñoom ci seen wàllu bopp na bañ ba tëdd ci naaj ba ne loole du ca dal tey duñ ca dal ëllëg ba tax sax jàpp nañ ne nag. loolee sàmmantewul nag suñuy xar baax G7 nag fi mu ne nii fa yéenewul yem foofe dina def ab caravane ba nga xamante ne bépp ba nga xamante ne kilifa diine moo ngi fa rawatina kilifa ada ñu daal di ko xamale loraange yooye ca dem ba ca Tëngéej fekk fa Denisia Sambo. secrétaire général syndicat enseignants libres yu Sénégal CELS authentique Abdou Fati bokk na ci jàngalekat yi nga xam ne dañoo bañ ne yenn jikko caay-caay yi duñu nangu ñu dugal ko ci curriculum wu l'école sénégalaise bi. bu ñëwee terme de référence yi nañu clarifier concept yi ba ñu ko clarifier concept yi ñu xam ne nii affaire jikko caay-caay parce que jàng na ni ñu ñoom la ñu bëgg a sërëxal si enseignement apprentissage yi si curriculum yi. moo tax waa G7 yëpp comme un seul homme ñoom ñëpp jóg taxaw ne lii du fi jaar lii ànduñu si duñu si ànd te dañ leen yoole dañ leen wilipande àndul ak aada yi fi am àndul ak suñu gëm-gëm. àndul ak lu ñu gëm àndul ak suñu culture. di ndaje boo xam ne UNESCO ank jiite woon ñu ko doon amal nag ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre ca salle yi jamono ji coowal gu mel nag ñu ngi koy waxtaanee ci télé yi rajo yi journaux yi ak it réseaux sociaux yi Khalifa Sarr parent d'élève jàpp ne du ñu mës a nangu yenn doxalin yoo xam ne day bàyyi ko bitim réew ñu koy amal fii ci suñu réew. ndax euh, gis nañ ne senegal dëkku diine la te dafa am loo xam ne moom la fi suñu di souvent yenn dëkk yi di ragal njàngum nasaraan bi yu mel nii lañ ci ragal donc boo xoolee zone bu bi ak yeneen zone ci Sénégal toujours yu mel ni pratique yu mel ni moo tax ñuy xaw a rejeter l'école l'école française donc dañuy dem ba ci biir ñu dugal si yoo xam ne ni xëy na bokk ci kon yaakaar naa ne en tant que parent d'élève mënuñu vraiment donc di cautionner donc yenn xeetu jàngale yi ñu bëri dugal si école jaare fa donc ba indi ay yàq-yàq si biir école bi. waajur Aïta Ndiaye moom di woo nguuru Sénégal mu leeral askan wi ci mbir mi. ah ñun de tiit rek lañ def tiit rek bi coow li jógee ba léegi daal fu nekk ñu ngi fay laajte di gëstu di xool coow li nu mu demee ndax euh, tudd nañu mbirum jàngale éducation sexuelle si école yi tudd nañu mbirum góor jigéen ak jigéen boo xam ne bu ko neexee ànd ak jigéen tudd nañu si lu nekk loo xam ne doy na waar daal ñu ngi ñaan ministre de l'éducation mu gindi ñu si lii wax ñu lu leer naññ naññ naññ naññ naññ. ak lu ci mënti am jàngalekat yi ñoom fas yéene ñoo bàyyi mu sedd waa G7 a sax ab ndaje ngir xool nu ñuy dooroon dëwee xàccandoo ba lu ni mel bañ fee am. dañ si am taxawaay bu mat sëkk nag suba incha allah siège SNELAS danañ si réunir dégager benn feuille de route te gëm naa ni si feuille de bi dina am visite chef religieux yëpp pour que ku si nekk am si taxawaay dina am visite également ONG yi nekk si religion yëpp ku si nekk si taxawaay. su ko jaree tamit ñu woo peuple sénégalais bi yëpp ñu génn ñun dañu bàyyi suñu waar ñu woo peuple sénégalais bi yëpp ñu génn taxaw jàmmaarloo. Rufisque Denisia Sombo pour Sud FM. ki noone la jëwriñ gi ñu dénk njàng beeg njàngale mi daal di ci àddu foofee ca Thiès jàpp ne nag loole ay wax kese la wante nag amut benn yoon ba nga xamante ne li mel. daal di nañ ko dugal ci curriculum vita bi kile lee di Mamadou Talla jàpp na nag lañ fa doon jàngale bokk na ci SVT ak économie sociale loole dañ ko fay daal di wéyal di ko jàngale ci l'école gi Mamadou Talla ñu teelu ko ci micro Babacar Ndaw mooy depuis bu ñu ngi wax ne si ay UNESCO ak leneen ay réforme bu ñu wax ne que mun na am ñu am si éducation si biir Sénégal li may wax rek mooy lu gàtt la amul benn réforme bi ñu envisagé tey lu jëm si wàllu éducation au niveau du ministère de l' éducation nationale surtout si domaine bi ñuy wax ne nag boobu ay éducation sexuelle ou leneen loolu amul maintenant li am mooy que projet amoon na fi benn projet bu fa nekkoon depuis 2018 et en ce moment sama prédécesseur mooy le ministre Serigne Mbaye Thiam nee leen que li ñun on est différent loolu du fi am maintenant li ñu nangu woon def depuis 2018 moom lañu doon def bilan temps yi fale si Mbour projet boobu 2021 bii lay jeex loolu rek moo am mais ñun li ñu def si matière bi ñuy wax ne SVT science vie de la terre matière bi ñu def économie familiale et sociale ak également suñu division bu ñu am moo xam ne moom mooy toppatooyu de mooy DSMS ñoom li ñu def rek si éducation mooy si information si wàllu santé de la reproduction foofu la yem amul leneen lu bees amuñu beneen modèle bu bees amul benn changement Sénégal dafa am ay réalité dañu am suñu culture dañu am suñu cosaan dañu am suñu religion donc ñun ñooy définir lan la ñu war a def comme éducation suñu réew donc vraiment débat amu fi warul am débat comme dégg naa ko nag démb ñëw naa fii si Thiès ma wax si pour que parent yi xam sëriñ yi xam élèves yi enseignants ñu xam ni ñu doon defee matière yooyu ba léegi noonu lañ koy defee tey noonu lañ koy defee suba amul benn changement bu am amul beneen module bu bees bu am loolu rek laa amul li may wax si question boobu jërëjëf moom Mamadou Talla moo ngi doon yëkki kàddu yooyu niki tey ci suba foofee ca Thiès ginnaaw bu ñu fay amab ndaje joxe attestation lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñett jàngalekat ya nga xamante ne daal dinañ leen tàggat ci wàllu tabax ci bâtiment scolaire yi laata mu daal di dem foofee ca INEFJA nga xamante ne nag daal dina feddliwaat yéen njiitu réew mi ngir rek daal ko ko laata niki noonu la ko daal di xamle. ni ki tey ci euh, suba cordonnier yu nekk wala bu ude yu nekk foofee ca Medina ci njàqare lañu nekk boobu ba néegi nii bi mbas mi alooti ko ci réew mi ba léegi amut benn ndimbal ba nga xamante ne bàyyeekoo na ci nguur rawatina ci seeni kilifa dem fa ñoom liggéeykat yooyu nag gis nañ ne seen liggéey fi mu ne nii lépp daal di tagga témbe bokk na ci juróom ñaari weer ya nga xamante ne kenn ci ñoom liggéeyul ba tax ñu daal di yëkk ay kàddu jëmale ko ci seen jëwriñ gi leen ŋànk ak itam Euh, di sàkku audience ci njiitu réew mi ngir rek mu daldi leen a dalal indi saafara ci seen jafe-jafe Omar Fam kenn la fa ñoom ñu teewlu ko ci micro ay setu géey ba. lan moo léegi lu ko waral mooy lu ëpp tuuru parce que jamono ji dafa métti sa instant yi dañoo am benn jafe-jafe boo xamante ni secteur bi mu ngi koy dund te état bi souffrance boobu moom xamagul ko. léegi nag pour mu xam ko foog acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoom la concerné mu toogook ñoom pour xam secteur bi lan lay dund si jafe-jafe ministre bi nag ñu ngi koy interpellé pour mu wàcc si base bi wax ak acteurs yi parce que ñun mosuñoo délégué kenn si benn ministère mu teewal foo am Médina ne Médina moo ko yebal kon ñu koy def ñoon seen seen turu bopp la pour seen intérêt bopp mais Médina mosul délégué kenn. nee sonn nañ parce que financement yi nga xamante ni tey moom la état bi digle na dana ko jox artisans yi te ñun secteur informel lañ nekk suñ jaay si jënd ak jaay la si mooy améliorer suñ chiffre d'affaires mais essence yi frontières yi tëj na te nit ñi consommer local bi tax na ba nit ñi mënatuñu woon fexe ba am du ñuy jënd si biir réew mi li ñuy importer moo ëpp foofu li ñuy liggéey si biir réew mi léegi bu mënee limiter importation bi ñu fexe ba li li ñuy liggéey mën a des mën a mën a mën a jot euh, waa réew mi wan ko jëriñoo moo ñu gën a ñuy importé yeneen daal yu ko di ko boole ñun si biir marché bi. koppoor yi moom à peu près mënuñu wax na tant perte mais ay milliers de perte nañ ko si durant Covid parce que dañoo tëjoon suñu magasin mënuñoo loolu liggéey léegi loolu moo ñu permettre tey ñi ñu toog amul lu ñu def dañoo am problème loyer parce que jafe-jafe yooyu moo ñu ko yóbbee dañoo bugg état bi def sacrifice ndimbale ñi ki ñu mën a dégg. dañoo bëgg a dellu suñu place liggéeykaay te lii jafe-jafe bi bu ñu si mënee génn ci la ñu gën a mën a dellu suñuy liggéeykaay ñu ngi interpellé ministre bu bees artisanat pour mu ñëw wàcc si terrain bi wax ak base bi. honorable député Léopold Yankuba Koli moom nag daadu ànd ak benn yoon projet bi nga xamante ne dañoo jóg ngir rek daal di yeesalaat tabax aéroport bu Ziguinchor foofe ca site bi ko duppee moom nag jàpp na ne foofe doonat la nga xamante ne moom moo gën ca askan wa te itam amoon na beneen bërëb ba nga xamante ne jamono Abdou Diouf ba nege ni foofu la ñu nattoon ngir rek daal di fa taxawal aéroport bu bees moom nag gisul lan moo waral ñu bëgg rek toxal ay nit daal di leen fa samp te am na site ba nga xamante ne dara nekku fa moo ngi ne yàmbalang Léopold Yankuba Koli ñu teewlu ko ci micro benn Michel Kanfoudi. bon sama gis-gis mooy euh, man comprendre ma ban décision la ñu bëgg jël espace boo xam ne dafa tuuti nga ne da def foofu aéroport alors que am nga espace boo xam ne def naa cent fois plus que espace boobu dara nekku fa def nañu études yi yëpp temps Abdou Diouf mu pare pour tabax après ñu changer position ñu ne léegi dañu defar Ndiass Ndiass jeex na Ziguinchor dafa bugg aéroport amul place nga ne da toj ay kër da ngay génne école da ngay génne poste de santé da ngay jël forêt classée nga yàq yokkaat foofu te du am benn jëriñ te Tobor Ziguinchor 7 kilomètres dong la ci 7 kilomètres loo déplacer jël sa place bi defal aéroport bu bees boo xam ne am na jëriñ pour ñëpp am espace su la neexee nga yokk ko lu la neexee man comprendre ma décision boobu ma ne ko Casamance yëpp loolu la ñu bëgg dañu déplacer aéroport Ziguinchor d'ailleurs danger bu ne bu aéroport Ziguinchor am kenn amu ko parce que Ziguinchor ci biir ville bi la nekk def aéroport ci biir ville loolu sa insécurité la espace ba ngi ne le domaine de l'état la moo ko jël yàgg na plus de vingt ans espace boobu kenn jëlu ko kenn nekku fa jëlal sa espace nga def foofu aéroport bu am euh, jëriñ nit yi bu am doole mais doo nekk fii nga ne da ngay dab daaxee aéroport boo xam ne am loo espace di indi fii ay coo ak population yi amul benn jëriñ di kàddu honorable député Léopold Yankuba Koli ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci jafe-jafe ndox wala boog ndox mu sellut foofee ca jogo askan wa fa rawatina ñu dëkkee ca Daaru Xuddoos ci département bu Tivaouane maire ba fipp la ñu def er, jëmale ko ci qualité ndox moomee ba tax rek ñu daal di yuuxu wàllu jëmale ko ci njiitu réew mi Babacar Sow ndox mu bon bi nga xamee ni moom la askan wi di jëfandikoo ca jogoo ak li ko wër di gox-goxaan yi nga xamee ni ñi ngi nekk ci dëkkub Daaru Xudus département bu Tivaouane neexul leen benn yoon doxub ñaxtu bi nga xamee ni askan wi ñu ngi ko doon def ngir ñu jëlaat leen ci liggéeykat yi ñu dàq ci GCO Grande Côte Opération taxoon na kat ba askan woowee di jëfandikoo ndox moomee nekk ca jogo kër ma tëgg àndal 1 àndal 2 ak li ko wër mer ba fut di wonek seenuk naqar di ndox moo xam ne bii dafa xonq cooy moom la ñuy naan ba tax sax ñuy ñaan askan wi rawatina jigéen ñi xeex bi nga xamee nii njariñu askan wi la. li ñuy xeex kat du ñuy dong lañ koy xeexal de population bi yëpp ndax jógoo ngi nii ndox mu xonq mi mi ne ñun yëpp nañ ko loolu yëpp ñun turati ci la bokk ci ñaxtu bi ndax jógoo ndox mu xonq te MDL ñebi loolu mooy dëgg jigéen ñi dugg leen ci biir nit ñi ngeen ñëw ñu jooyandoo li ñuy jooy ndax ëllëg a tax ñun dong moomu nu ko ni ko moom mooy askanu jogo daaru xuddoos ba mbooro ñoom ñoo ko moom ñii dañ noo jàpp di noot noot boogee lañ bëgg a dindi nanu bàyyi nooteel gi loolee tax na sax ba ñoom ñooñee ñuy duut baaraam GCO ba tax sax ñuy sànni yuux jëmale ko ci njiitu réew mi mu àdd ci lu ni mel na fi jóg loolu na fi deñ na fi jóg na fi deñ na fi jóg na fi deñ na fi jóg kon gaa ñi tey bu dara sedd yéen waa jogo yi jóg leen ngeen topp ci mbooloo mi ngeen ñëw ñu dem ba kër ma tëgg buñ demee kër ma tëgg daal di fay taxaw ñun durée di ñu yóbbante ko président la république jot ci képp ku ci war a jot jot ci ñun lañu waaye Tivaouane Babacar Sow dañu ci jokk ak fii ci kër ma tëgg pour Sud FM. ginnaaw bu fukki simili ak juróom-ñett tegoo ci juróom-ñeenti waxtu ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci lu jëm ci wàllu wàllub mbas mi ak nees lañu def ba daal di fexe première fa daal di joxe doon la nga xamante ne nag dañ ko daal di séddali gox goxaat yi liggéeykat ya fa ñoo ngi sàkku ci wàllu seen wàll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards ya nga xamante ne dañ ko jagleeloon. pirimu mbas mi ñoom nag euh, ñu benn yoon ci xaj ak seen gi nga xamante ne ñoo ngi koy def jëmale ko fa ñoom Josette Kali. personnels soignants yi kontaanuñu affaire yi doxul gisuñu dara. yile agent de santé yu collectivité territoriale mer ba futt la ñu def si ni ñuy ñaawloo séddale gu jaarul ci yoon ñooy sàkku ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér gu yaram mu fay leen seen ay prime yu Covid Sidya Ndiaye coordonnateur bu intersyndicalu liggéeykat yu collectivité territoriale yi. ñun lu ñu remarqué mooy ñun agent communautaire local ak agent de santé communautaire gisuñu dara en dehors de quelques trois mois yu ñu feen jël ba léegi kenn gisul dara. donc loo tax ñun ñu fi bune duñ ko seetaan baadu liggéeykat lañu yore donc mënuñu nangu tey ñoom ñuy jël xaalis bi def gestion yaa ma neex ba pare ñu ne yeen toog leen ngeen di continuer di liggéey bu dee amuñu njëriñ ci réew mi nañ ko tëj te ci lañ jëm bu ñu ko tëj leen ñu dinañ ko tëj ginnaaw juróom benn weer bu ñu nemmee ko patt pataaralu autorité yi tax na ba yile agent di xam le ni dinañ def lépp ba ñit ñi mën leen a dégg rawatina nag samp ay série wu plan d'action parce que ñun duñu toog di seetaan primo te duñu bàyyi maanaam dinañ bind ñi réew mi ba moom mu arbitré deuxièmement à partir janvier centre santé yi dinañ ko commencé agents municipaux yi takk brassard partout pour wane seen naqar troisièmement le 13 janvier bépp agent bépp structure municipale dañuy arrêté travail bi de 10 heures à dañuy compter diir 30 jours bu 30 jours yi passé nag dara xewul bu boobaa nag ah balaa ñu egg ci grève bi nag le 30 beneen date de marche bu ñu organiser ngi sàkku ñu bu baax baax a baax koppar yi bàyyeekoo ci prime bi jëm si seen ay agent Sidiya Ndiaye. ñu ne xaalis bi moom anamu xanaa boo amee zone quatre zone quinze milliards nga war a fay liggéeykat yi ay cinquante te cinquante yi du ñoo ko décidé kenn wooteewul commission ndaje partenaires sociaux toog ñu ne on va temps au travail on a rien dit dañu ne rek mois bu nekk di ngeen am cinquante waaye mais mais yow boo toogee ne cinquante mille la nit ñi di am mais na nga loolu engagement moom mënoo ko honoré ñu ne xaalis bi jeex na ma xaalis bi dañ ko guuxu de la santé ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu ñaar fukki simili ak benn tegoo ci juróom-ñeenti waxtu ñu àddu ci génnub àdduna général du Niang commission bu wala bokk front démocratique sociale résistance nationale de FNR moom moo ngi daal di jàlle mbokk yi nga xamante ne moom mooy général Mamadou Niang euh, andi ay kàddu seede bokk na ci doon ka nga xamante ne ñu wegoon la rawatina ci wàllu pour langue politique ak ñi yëngu ci wàllu espace public fii ci Sénégal doon ka nga xamante ne itam amut lenn la nga xamante ne mën nañ ko ko toppee ci wàllu liggéeyam doon itam ku doon boole ñëpp ak képp ka nga xamante ne noo ñëwee rek moom mun na la dëkku loole la ñu daal di nemmeeku ci moom ginnaaw bi nga xamante ne door na commission boobe ñu ko daal di woon tabb ci wàllu politique bi daal ginnaaw bi nga xamante ne nag FNR ñoo ngi sàkku kenn ka nga xamante ne féetewul fenn daal di jiite boobee commission ci noone nag ñoo ngi yëkkati seen njaal jéemale ko ci njabootu way dawlu gi ak ñuy yëngu ci wàllu langue politique rawatina. askanu Sénégal yépp noone niki tey jii sax le général Mamadou Niang ci sànq lañ ko daal di jébal boromam fi nga xamante ne moom mooy. ca janasa yu jullit yu nekk ca euh, yoof ci itam ñu yëngu ci wàllu politique ak yit ñëpp ña nga xamante ne teewoon nañ ci levée de euh, corps boobee daal dinañ yëkki ay kàddu sedd Ismaïla Marcel Koli ci biñ koy jullee ci jàkk omarienne ni ki tey ji kàddu yi benn la général Niang ku baaxoon la ku woyofoon la te ku mënoon boole ay nit la ñu ki xam la li ñu mel mooy Mamadou Ibra Kane waaw général Niang li ma mën a jàpp ci moom mooy nitu jàmm la woon nit boo xamante ni pusoo la dafa doy ñaw di boole di boole sénégalais yi rawatina nag acteur politique yi ci loo xamante ni ci déggu déggoo ci ni ñu war a yoree réew mi déggoo ci ni ñu war a euh, euh, organiser maanaam compétition politique du lu yomb loolu moo waral mu jiite onel mu nekk ministre de l'intérieur mu nekk ba yàlla di ko jëlee fii président commission politique du dialogue national mu nekkoon itam soldat soldat ci wàllu l'armée mais soldaaru démocratie soldaaru république nekk nitu jàmm ndaxte Casamance ak ni mu taree woon ni mu mettee woon ay doomu Sénégal jël ay ngànnaay loo xamante ni mooy militaire bi walla ñi nga xamante ni moom la ñuy woowee MFDC loolu yëpp ci réeru moom mu gérer processus de paix boobu ba moom ñu mën a am jàmm même bu fekkente ni léeg-léeg mu am ay ngànnaay yu jóg walla yu mel noonu mais quand même na processus bi comme ni mu waree ak rigueur ak cawarte kooku nag euh, doomu Sénégal bu mag a mag la boo xamante ni war nañ ko delloo njukkal. yile kaddu Serigne Mbacké Ndiaye bokk ci langue politique bi daan na ko feelu ci benn wàll ga. ñu dellu ci li mu xamoon ci dem ci yàlla bi jëlee. waaw li mu mën a jàpp ci général mooy euh, xamoon naa ko comme ni ko sénégalais xamee ndax euh, responsabilité yi mu assumé ci réew mi mais nag jege woon naa ko bi ñu commencé le dialogue politique parce que moom moo nekkoon président ko man ma bokk ci dialogue. ma doon am habitude aussi di tëjoog moom di diisoo ak moom di waxtaan ak moom di ak moom. ma gis ni nit la ko nga xam nit ku yaatu nit ku ubbeeku man du ma daan ñëw souvent ko wax mais mais mais mais général arrêté bi parce que lii nii la war a demee démocratie mu ni ma yow da ngay wax en tant que homme politique man dama en tant que père de famille li ma mekk père famille moo tax mu mën a dajale ci salle bi ñoo nga xam ni y a deux mois de cela wax nga fexe ba ñu daje dans une salle di waxtaan di juboo ci ay kaddu yu bëree bëri yooyu vraiment dafa nekk nitu consensus pour tax mu mën ko réussir donc nitu jàmm la woon parce que ñi fa nekk ñëpp gis nañ loolu. ci fàttali général Mamadou Niang mi ngi juddu ci atum 1938 ci Podor doonoon na fii ministre de l' intérieur bu Sénégal ci atum 2000 waaye it doonoon na ambassadeur bu Sénégal ci réew réewum Guinée-Bissau ci mujjantal gi nag moo jiite woon kuréel gu doon saytu mbiru politique ci dialogue national. ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Assane Thioune mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu vingt deux h jotee xam sa élément war ñëw ak ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon sud éducation moo ñuy wutu ci togg gi ngeen ànd ceeg service commercial yi itam ci wàll wàllu publicité ñu leen di ñaanal panaanub jàmm